papa ñu xanaa ki dem màkka du jullit. <laughs> ah ki dem màkka de bu fekkee julli la waru ko waru koo def su dul julli nag moom moo xam kon ajiwul màkk ki dem màkk ñu teg ay musique di fecci. kon ajiwuloon màkk moom dafa noosi woon. ñëw di mottalee noos gi fii ci Sénégal. waaye ku aji màkka boo ñëwee ne wax dëgg yàlla war ngaa soppeeku la. waaye nag màkk li la muus waxoon rek ah, ci janax ja janax ba ba muus jógee màkk ñu ne nañ ko ziyaare maam janax def ne leen bu leen dem ndax mu màkk du dindi jikko fay dem mu jàpp leen rey leen ci ngaram gi ñu ne ko dañuy dem ndax màkk di dindi jikko bañ déparé dem ba yegg ci moom euh, mu mu mu mu gis leen rek suñu mbaxana màkk ma tëbal leen waaw gaay gaay gars yi daw daw daw bu bëgg a ah maam ne waxoon naa leen ko noonu naa leen man dama taayee dox taayee wuññee ko daw. waaw ndax màkka dindi ji ko. julli rek kay dindi ji ku julli rek. julli moom. boo koy def ti mu baax. bu lee ren déwén loo doon def da nga ko bàyyi. takk téereeg ñaan wut gàllaaj ak yooyu yëpp jullee ci gën. julli daal boo koy def léegi nga bàyyi lu bon li ngay def waaye ba ñaanal ma bàyyi cigarette. ñaan ma bàyyi sàngara ñaan ma bàyyi lii yëpp jarul ñaan ak commencé julli rek boo di julli léegi nga bàyyi lépp waaw waaye bu dul julli benn mënta soppi ji ko mukk màkka dem di dem di dem man ngaa yaru nag commencement nangam nangam bu yàgg nga sànni fa dem ca la nga nekkoon rek waaye nag julli mooy li nga xam ni dana dana change jikko julli mooy li change jikko waaw mooy dindi jikko waaw yu tabalaak euh, xam nga moom ndëndëg yëpp a yem. ndëndëg yëpp booy def rekk defal. waaye daal li gën ci boo jógee màkk. mooy boo ñëwee yiwal man daal loolu laa xam. boo ñëwee daal yiwal. waaye teg ay ndëndëg teg ay fële musique ak loolu lépp amul solo. li am solo mooy. nga soppeeku fexe changer jikko waaw nga fexe koo fe da koy fexe boo ko fexee yàlla dimbali la ci waaye boo ko fexewul yàlla du la ci dimbali dangay ngay fexe dindi sa jikko nag jikko yu bon yi nga yoroon nga dindi ko waaye jógee màkk ñu dellu ca na meloon kooku kooku ñàkk aje ajee ko gën da aji aj dafa am solo gis nga yoon yonent yi dem yëpp fi mu toog fi mu taxaw fi mu ñaan fi mu dem fépp ngay dem soo fa demee def lu yonent bi daan def boo ñibbisee danga nga tal leneen lu fekk mm-hmm. da nga tal leneen waaye bu dee da ngaa dem màkka dem màkka ak aji màkka du benn mm-hmm. sëñ Babacar Sy ko nee na dem màkka ak aji màkka du benn dem màkka mooy nga dem rek comme nit ànd ak nit ñi dem mm-hmm. aji màkka nag mooy nga dem aj la bi daan def nga def ko boo ko defee nag boo ñëwee doo da nga tal leneen waaye nag dem ñëw yàkkamti ngaa ñëw ba def sa nganale mu xumb nit ñi jaar fi fecc mi fii eh, woy yi fii ñii di yuuxu ñii di nangam nangam loolu ay tappale la rek ay caaxaan la ah, ay caaxaan la rek <laughs> ay la rek ñi koy def ñëpp dañuy caaxaan dañuy caaxaan rek waaye màkka léegi nag màkka la màkka léegi màkka la waaye màkka bu njëkk ah du màkka de léegi ah dem rek xoolal ñi dem màkk sa morom ñi dañuy dem màkka di ah am na ñoo mag sax ñoo xam dañuy dem màkka ah ñii ñëppay dem màkka suñ demee tiitaru fii naa senaf fii ñii di def lu kenn xamul hmm. ah alors dafa am àll bu war dama la wax ne màkk fi mu ne dafa yomb hmm. dafa yomb waaw bu par rapport ak bu jëkk ah, bu ah, jëkk hmm. aj dafa jafe moo tax boo daan dem di tàggoo di jooy yaakaar ne danga fay des waaw ah, booba loolu la waaye léegi màkk dafa yomb avion ngay dugg boo demee yegg toog dem dal bala neex boo jëlee VIP nga dal ca wetu Kaaba ga boo wàccee rek du jubal ci Kaaba ga waaw boo jëlee VIP man nag bu may dem Màkka VIP ak lu dul VIP laa yemale man daal naa dem rek su ma demee xanaa de diggante Kaaba ak fa ma dal lu sore sori sori sori moo sut eh, war warul sut Sénégal xanaa <laughs> waru koo sut bi ah voilà ma dem aj sama aj parce que ajalu yóbbu waaye def ay VIP ak nangam nangam yoroo xaalis da ngay tiitaroo waaye yoroo xaalis waaye ku yor xaalis dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg Ah, du def loolu de yoroo xaalis da nga xaalis rek da ngay rek mhm. da ngay rek amoo dara amuloo dara dangay ngay amoo dara dara amoo ko da ngay tiitaru rek mhm. Mhm. alors suñu jógee ci li nga xamante tamxarit de taaje boon ji moom bokku ci ah, taaje boon ji gars yi def daal ay saboote la rekk tëgg meeg fecc meeg loolu lépp bokku ci tamxarit daal bis la boo xam ne ci la yàlla musal yonent yépp yi mucc ci mucc yonent yàlla noox ak yonent yàlla ibrahima ak yonent yépp ci tamxarit la leen yàlla musal te li ko waral ñu def ko tamxarit yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu gàddaayee màkkat euh, madinatul munawara euh, mu karama dem madinatul munawara mu ngi yegg bisu tam waaw waaye nag la waral ñu def ko ñu di def atul islaam imaamu ali moom moo mujjee ñëw ndax ba yonent bi génn dafa bàyyi ko bokkal muy ali ibn abi taalib moom la gën a bokkal dañ ne ko bàyyil fii ko bokkal mu toog fi ñu ci des dem Babacar ne moo fi des mu ne ko dee bàyyil ali ni des fi ba Alioune sàngoo seeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> tëdd gaa yi yërlu seen ko defe ne yonent bee fa tëdd hmm. ba ñëwee ba tiim ko euh, rek Alioune euh, dindi seeru ñu ne kii dañuy fonto hmm. ana yonent bi ñu ne dem na ñu dóor ko ba pare tëj ko une heure de temps lañ ko tëj waxtu lañ ko tëj bañ ko bàyyee mu dabi leen ba jël xale yeeg màgget yeeg ñëpp takk yóbbu dabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeer yi xam nga booba màkka dafa bëri xeer xeer yi muy dox di tarxiis di dagg di di nàcc tànk yëpp di nàcc ak ak loxo yi ba muy yeggee nag fekk yonent bi toog Omar ibn Xattaab di xool di di xool Ali ibn Abi Taalib ba mu yàgg mu ne yonent bi lii daal dañ ko war a histoireal dañ ko bind histoireal ko def ko suñu at am gënul yonent bi ne ko ankay ariqo amral muslimina kon nag nañu taarixal aw mbiru jullit yi keroog lañ bind taarixal ko muy suñu at mi ñu def ko suñu atul tax ñun suñu at la waaw suñu at la waaw alim naa bi taalib nag dafa tiim tànk ba tànk mu ngi nàcc mu ne ko mu joxoñ baaraam bi ne ko maa anti ila isbuin damitii wa fi sabilillahi maa laqiti yow nekkoo lu dul baaraam maa yow dañoo daje ci yoonu yàlla rek mm. faalewuma la loolu ñoom dañoo gëm yàlla ñoom dañoo gëm yàlla ba ëpp mm-hmm. ñun dañoo weddi yàlla ba pare mel ni koo gëm mm-hmm. ah moo càmm ñun koo xam koo xam ne bu mettee nga nga génn bu neexee nga ne ah, est yàlla nangam nangam yàlla da koy gëm mm. yàlla dañ koy gëm yàlla da nga koy gëm mm-hmm. mu nekk sa xol nga di ko xalaat foo toll waaw kay moo tax mu ne ko maa anti illaahi sibaani demiti wa fi sabilillahi maa laqiti ci yoon yàlla rek lañ daje amul amul waaw waaw waaw danañ koy def nag loolu danañ koy dagg say wéy tus ngelu raay bopp jirim nga xam ne dangay ngay commencé ci kanam nii fii ngay commencé def nii waaw booy raay bopp jirim fii ngay commencé jëf nii. nee nañ karaw bu ne dana doon kër ah, dana nekk eh, garab ci aljana pour yow booy def nii waaw waaye nag boo ko raayee danga nga koy jox dara nag waaw sëñ Abdou eh, am na benn bis bu tamxarit jotaan saal ba lay dem toog xale bu sa bàyyi dundu rek ku sa bàyyi dee nag lañ koy def ku sa lañ koy def jirim non non bàyyi rek jirim rek ñu ñëw nag ñun ñëpp ku sëñ ab ne sa bàyyi dafa dee nga ne ko waaw ñëpp rey seen bàyyi <laughs> ci kenn ci deewul sax moo deelal ñépp rey seen bàyyi comme ne waa yow nag nga ne man de sama papa dee na mu raay ah, xam na ne deewul waaye nag mu moom baaxam mel noonu nag mm. mu jël dix mil jox la waaw gaa yi dix mille yi lañ soxla mm. rey seen bàyyi ci dix mille franc dix mille franc jaru rey sa bàyyi waaye gis nga ñoom ñëpp rey seen bàyyi comme ne yow sa papa na mu ngi dund nga ne ko déedéet dee na bu yàgg <laughs> mu mu jox la yow sa papa ngi dund nga ne sama papa dee na bu yàgg mm-hmm. mu raay jox la suñu génnee nag saal bi ci lañ ne yow yaay naafeq yow sa papa dee dee nga ne waaye dimbale ma waaye eh, man damaa bëggoon diimee rek yaa na waaw loolu la ñuy def waaw yooyu yëpp baax na baax na dara nekku ci dara nekku ci baax na mm-hmm. mm. Oustaz man seen mbokk suñu waaw ñoom ñoom dañuy gis ñu seen yaram te loolu ñoom dañuy fàttaliku seen э, э, э, démb yenent bi xam nga fàttaliku démb yonent bi di dagg seen yaram ndax na ko àllin defe woon na yaramam dagge woon àllin yaramam dafa daggoon ci doj yi waaye moom daggu ko ñoom nag dañoo jël seen yaram di dagg loolu nag jaru ko waaw ah jël seen yaram dagg di jooy ak nangam nangam loolu lépp jaru ko parce que loolu bokk ji ñoom nag ñoo ko ci def buñ ko ci defee nag seen affaire la waaye daal li nga xam ne mooy tam xare dëgg dëgg dëgg mooy li la wax waa waaw ñu bàyyi xel daal ne tamxarit daal eh, cere yeeg ñeex yeeg eh, jaxas yeeg lépp ñuy def rek man man xamu fu ñu ko jëlee ah waaw dañuy ñëw rek defar waaw waaye xamu fu xamu fu ñu ko jëlee bu ko defee nag ah bu ñu jotee nga lekk ba suur rek te lekkal ba suur daal moom daal lekk rek lu xew rek lekkal lekk ca loo man rek bàyyi waaw loo mën a lekk lekk ci bàyyi waaye nag cere yooyu bomb yooyu boo ko toppee. Mm. Oh, day day yàq sa biir yu ma mbomb moom man xaw ma cere yi mënoon nañ ko def cere yu simple cere simple moo gën a neex te moo gën a jig jig nit ci yaram waaye te cere mbomb yooyu nga xam ne boo ko lekkee sa am na koo xam ne ni bëggee cere <laughs> am na waa joo xam ne dafa bëgg cere bëgg cere moom mooy waa jële ci kawam xaalis mu ne waaw moom cere moom ah, bu jotee boo ko tibbaloon booli sax mu denc ko mu jël waaw moom moom moom te cere moom da koo bëgg moom man nag cere man yabuma ko yabuma ko sama kii maa ngi lay char di la nuyu ah, man sama question ci bisu tamxarit damay dégg mag ñi di wax ne guddi tamxarit dafa baaxoo fanaane naafila mm-hmm. ah, ma bëggoon a xam booy naafila ba toog yan eh, eh, ay kii ngay mën a saar ngay mën a wérd ngir fanaanoo guddi gi waaw moom eh, aw góor xam nga dañu wax ne junni xul huwa allahu ahad nga ko mënee jàng baax na junni soo naafilee loo mën ci alxuraan ngay jàng faqra u ma tayassara min alxuraan lu ngeen mën a jàng ci alxuraan rek jàng leen loolu mm. soo ko jàngee ba sëlman na nga jàng fa faatiya jàng xul huwa allahu ahad loo ci loo jàng ci xul wallaahu ahad rek baax na nga nga tëjee ko salaatu ala nabi def ko addi yonent bi waaw di jàng nag laa ilaha illallah muhammadu rasulullah laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ba faja jot kooku fa moo gën ci sikar yëpp waaw moo gën ci yi ñuy sikar yëpp looloo ci gën waaw afdalu afdalu wujuhi zikri mboolem xeeti zikar booboo ci gën laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw nga jikkar loolu bët seet nga jox julli gi ñuy julli fajar gi ndax ba ñuy temps nekk xale dañ daan gis fajar gi ñu man ñu yóbbu ñu euh, ñu ñuy julliloo julli fajar euh, julli googu lan la doon ci tam déet julli fajar moom ñëpp a war a julli ji moom moo julli moom suba gi julli suba moom bu jotee ñëpp a war a julli waaye amul ñi ñoo war a dem bu bu tam xale lañ koy def déedéet waaw man jànguma loolu tamxare rek la ñuy julli suba déedéet waxtu wu julli jotee dema julli tamxare nag dañ ci da ciy rawati nag gars yi dañuy dem julli ji suba waaye nag nit ñëpp di julli suba waaye bu dee tamxare rek nga julli bàyyi yi ci des kay julli ko am amoo amoo amoo dara waaw dañuy danga daan gis aada yi dafa bëri xam nga ñun suñu suñu diini dafa bari aada ba mënoo xam ni diini jeg aada yi dafa bëri dafa bëri aada ba mënoo xàmmi diini ci ak aada yi dafa bëri trop waaw dafa bari trop mm-hmm. donc na kenn mënu koo xàmmi da ngay xool takk jabar am na aada mm-hmm. takk jabar am na aada dañuy dem naan waa bayu baayu anamu mm-hmm. yeeli maam anamu attaay xale yu góor yi anamu sàngal xale yu jigéen yi anamu loolu lépp ñu di ko laaj ba fàtte can gi te can gi ñaar rek la boo ñëwee di ñaan sama doom nga ñëw di ñaan sama doom di bëgg yow mi ko bëgg boo ñëwee moo gën waaye gis nga léegi dañuy yabale doo ñëw mm-hmm. et pourtant nga ñëw ba am moo gën mm-hmm. soo ñëwee ma ne la dama sama dama wax la condition yi ma lay mayee sama doom mm-hmm. nga dégg ko waaw su ko defee may la ankaxtu ko yi may naa sama doom bu jigéen bi nga ne ma xabiltu nangu naa su ma ko mënta wax ci arab ma ne la may naa la sama doom bu jigéen bi nga ne ma d'accord nangu naa waaw mu jeex soo defee nga joxe mille quatre cent mille quatre cent moom la Seydi Hadji Malick daan joxe mille quatre cent francs mooy canu jigéen euh, léegi nag tuwaan yokk nañ ko waaye man bi ma koy ñaan jabar sama benn jarbaar ma koy ñaanal jabar Omar Kumba dama ne leen man mille quatre cent lay joxe hmm. ñu jëm kaw ma ne leen moom laay mille quatre cent daal mën naa koo joxe su ma paree nag li ngeen ci teg na ngeen wax ma ko ma jox leen ko ah, waaye man eh, cosaanu Maodo bi moo ma neex mm-hmm. cosaanu Maodo bi laay jël mm-hmm. mille quatre cent la daan def man mil quatre cent laay def waaw bu ngeen ko man ñu may ma ci loolu mm-hmm. Juuf a ngi toog Xalifa Luum a ngi toog ñoom ñaar ñëpp Xalifa Luum moo gaañu waaye Juuf a ngi dund waaw ñoom ñëpp a ngi toog may leen daal mille euh, mille quatre cent daal laa man mën naa ko joxe moom ngeen may ma ci loolu ma jox leen nag la nga xam ne moom ngeen ci teg yéen waaw mu bañ a bokk ak can gi suñ joxee cen gi nag jeex na la ci des nag mooy alal su neexee ndaw si mu ne la nañ dem ma sëyal la doo laaj dërëm su neexee ndaw si la laaj dërëm mille quatre cent yi boo ko joxee jeex na mu la nañ dem ma sëyal la wala bu ko neexee mu ne la jox ma kaamil alxuraan wala bu ko neexee mu ne la jox ma benn sër bu ko neexee mu ne la jox ma mbubb wala bu ko neexee mu ne la jox ma nàngam ci xaalis can amul fu mu fu mu yem su ko neexee mu lay la téeméeri milliard milliard waaw amul fu mu yem téeméeri milliard mu laaj la ko nga ne ko ah loolu de aw ma ko mhm. ma am naa genn wàll gi nag mhm. soo amee genn wàll gi ngeen waxtaan ba d'accord ca nga joxe ndaw si moo koy laaj yaayam du ko laaj bàjj bàjjanam du ko laaj ndaw see laaj li bëgg waaw nga jox ko yow su ko neexee nag mu ne laaju ma dara dara nañ dem ma sëyal la mhm. waaw bul ma dóor rek bul ma saaga bul ma xas ñett yi daal bëgguma ko bul ma dóor bul ma saaga bul ma xas waaw waaye nañ dem ma sëyal la waaye baax na waaye nag léegi loo ci gis yaayee laaj bàjjenee laaj loolu aada mënoo ko mënoo ci xam dara suñ demee ba yu bàyyi xam nga ne aada la man mas man man eh, doom yi ma bàyyi la yëpp ma ñëwee ñu joxe ba yu bàyyi dama naan mukk man jànguma ko de jànguma loolu duma ko jëf man lu ma jàngul du ko def li ma jàng rek ma nekk yu bàyyi jànguma ko du ma ko laal waaye am na paa bu ma bàyyi loon waaye ba mu jógee moom daa laaj ba yu ma waaw waaw da koo laaj de ma ne ko ah moo tey ba tey baax na waaye yooyu yëpp jàngoo ko da ngay dem a dem ci ci takk bi ba da ngay réer doo xam la cay aada doo xam lu jub doo xam lu jubal yi mhm. dangay réer complètement waaw ndax euh, yëf yëpp yëppay jaxasoo. waaw yu baay ak yéeli maam ak tànk tànk nangam nangam yooyu yëpp. waa xanaa loolu buñ ko joxee buñ ko joxee xanaa bu sëy ba tasee war nañ ko fay. ah. buñ ko joxee yéeli maam. yéeli bàjjen. tàngal xale yu góor attaay xale yu jigéen. suñ ko joxee laa wax dama ne buñ demee ba sëy bi tas de war nañ dem ci xale yu jigéen ñi eh, indi leen attaay bi xale yu góor indi leen xaalisu uh, góor a gi laaj maam ñëpp ñuy joxe waaye duñ joxe dara loolu aada la nga xam ne aadala jeex na bu dee ngénte aada la ñuy def ngénte ñaar wax naa la takk li ma yow takk ne naa la ñaar la alal ji nga xam ne mooy dagan ndaw si mooy moo lay dagan nga xam ne ndaw si dalay dagan uh, bu ngeen séyee du doon njaalo mooy mille quatre cent yi te la ma jàng fa laax de. 1400 mhm. yéen am nañu ko am ñu ko yokk nag. am ñu def 30 000 am nañu def 40 000 am nañu def 50 mil am nañu def 60 000 mhm. am nañu def cent 000. Mhm. kenn jàkka ju ne ak la mu def. waaye man ca Tiwaawoon la ma jàngoon ca cosaanu Maodo mooy 1400. waaw 1400 yi boo ko joxee ñu may la ko. suñ la ko mayee nag la ca des di alal ndaw see la koy laaj. su ko neexee mu may la lépp ne la man laajuma la dara nañ dem ma sëyal la jeex na lii mooy sëy. waaw bu dee tudd tudd lañ wax tudd ngénte ku di tudd ba aada muy charia ngénte mooy mooy aada ngénte mooy aada tudd mooy xale bi judd na nga nga nodd ci te nopp ndeyjoor bi li xam càmmoñ bi ni tuddee naa ko diw tuddee naa ko muhammad sallallahu alayhi boo ko tuddee ñu rendi xar mi xar mi buñ ko rendee jël ndawal gi jox euh, sarax si nit ñi lii ñu togg ko ci kër gi baax na loolu muy tudd jeex na mhm. waaye lu ca topp lu ca topp rek aada la mhm. waaw seetal loolu làng yeeg ndey yeeg yebbi yeeg yëpp aada dara dara bokk mhm. tudd rek la wax tudd rek tuddal bés bi judd bis bi mu judd delsi na nañ tudd xale bi nuñ koy tuddee nañ nañ no no no no no nodd ci nopp ndeyjoor bi li xam ci càmmoñ bi ne tuddee nañ ko sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam rendi xar mi jeex na fa la lu ca topp rek aada la waaw lu ca toppati aada la waaw saa ñu lay jaajëfal euh, pour bañ a génn ci li nga xamante ni moom mooy tamxarit bi rek ndax dinañoo gis ñenn ñoo xamante ni du tombé tamxarit bien avant jour tamxarit bi ñu ci bëri dañ koy woor bu ci sax lendemain tamxarit bi ak ñi nga xamante ne tamit amuñu habitude dem di ziare ñi nga xamante ni ñoom ñooy aji daw yi ñu si bëri bokk nga xamante ne moom mooy bés tam xarit waaw da cee bokk nga dem ziyaari wëliyu wala nga ziyaare borom xam-xam wëliyu nag man xaw ma ko mhm. gars yi nag ñeme nañ yàlla ba xam wëliyu ndax kenn ku ne sa sëriñ nga ne wëliyu la wëliyu la ku la ne la mhm. yàllaa la ko wax yàlla moo ko xam ni waaw mhm. ah, yàlla moom moo xam wëliyu yi nee na samay wëliyu ñun sama suufu tànt man donga leen xam waaw awliyaa yi taxta xibaab yi laa yaarifum siwaay yàlla ko samay wulli ñun sama suufu tànt yi daaw kenn mënu leen xàmmee ko dul man waaye nag gaa yi gaa yi ñoom ku jog ñu ne wëlliyu la di wëlliyu la sama sëriñ wëlliyu la day naaw wëlliyu wuy naaw moom lu muy jëriñ Seydi Hadji Malick ba ko waaji ne ko sama sëriñ day naaw dafa ko naan sa sëriñ di séeréewul yàlla teg ko yàlla teg ko suuf moom muy dem ci kaw waaw mu daal di rus nag waaw sa sëriñ di séeréewul nag ndax yàlla nu mu koy tegee suuf moom muy dem ci kaw di naaw bu dajee picc yi xanaa dina rus de wala bu dajee petax yi c'est ça bu ko defee ne nga dem ziyaareel borom xam-xam rek boroom xam-xam nga xam ni kii boroom xam-xam la nga dem ziyaare ziyaare ñu baax ñëpp ko defee nga dem ziyaar leen loolu baax na wooral bis bi itam waaw bisu tam xarit ko ci ëllëg sa woor ko baax na kooku itam dara nekku ci sariya ko bind dagan na nga def ko dara nekku ci yooyu nga woor leen ak naafile yi ak euh, yooyu yépp nga def leen dara nekku yi maanaam li nga xamante ne moom moo di impôts yi nga xamante ni télé yi waroon nañ ko fay te état bi di leen ko toppee ku ci mel ni Birane bu génn nañ ko gis nañ ko mu génn def sorti waaye tamit ki nga xamante ni moom moo di Bougane Gueye affaire bi na ko lan ngay wax ci kon déet itam dama wax wax Birane na moom li nga xamante ne moom moo di fisc yi métti na métti boo xamante ni si ñoom dañ koy fay ba sax ñoom duñu am profil seen bopp maanaam tey jii télé bi mën mën na liggéey ay at ba mu daree liggéey ba léegi sax 2012 lu mu fa nekkee moom ba léegi mosuñu ci am maanaam ñun revenu mosuñu ko ci am ndax fay fii fay li nga xamante ne moom moo di impôt te sax mu mat euh, fay tamit ay employé xam nga nag euh, euh, Sonko Ousmane Sonko premier ministre yi nag. Mhm. nga nañu waxtaan rek. Mhm. suñu waxtaanee. Mhm. am. waaye bu kenn ku ne dëgëree. yërmandi mën naa bañ a am. te buur kenn du xeex moom buur boo xeexee moom mm-hmm. dana la yenu ba ca kaw doolu suuf te doo gis ku la àtte ndax dañuy ragal ñu def leen noonu mm-hmm. loolu lañuy ragal mm-hmm. moo tax kenn du la àtte donc nañu waxtaan am na benn émission bu fii waxtaanee nañ ko waxtaanee waxtu lu am solo la émission bu am solo la waaw nañ ko waxtaanee lu am solo la su su su bugaanu su kii wootee eh, Ousmane sonk ñoom bugaan ak ñoom biraan ak ñoom ñëpp nañ dem wuy ji rek. demee ñu waxtaan dañoo bëgg ñu waxtaan ci eh, affaire lempo yi. ngeen wax ñu li ngeen bën li ngeen man su ko defee nag ñu ne lempo yi kat nangam nangam nangam nangam waxtaanee ko ba juboo waaw ah, nañ ko waxtaanee ba juboo rek waaye buñ ko forcé du baax waaw ah, buñ forcé du baax nañ waxtaan ba juboo nga xam ne juboo nañ ci fay lempo yi ñu fay lempo yi waaw waaye dégg nga li Birane wax loolu buñ ko boolee eh, fay seen employé kon ñu dem te kon ah kon kon kon du leen jëriñ dara te loolu itam nag eh, boo ñëwee ci réew nga xam da bëgg xale yi liggéey bëgg ñu jàmbaar dañu waroon jël télé yi jéem leen a renforcer sax dimbale leen ci xaalis pour ñu gën a mën a dimbale xale yi mm-hmm. waaw pour ñu gën a mën a dimbale xale yi ndax loolu buñ ko defee ñii amuñ lu ñu fay kon tam euh, problème mu xale yi lay doon ah, ndax dañ leen dàq ndax buñ leen dàqee kon fu ñu jëm dañuy sommer waaw dañ leen dàq foo defee nag na na na Ousmane Sonko rek arrière moo ko Bachirou nañu arrière seet rek li nga xam ne mën nañ koo def xëy ñu def ko li ñu mënul ñu baal leen ko ngir yàlla rek waaw waaw kay waaw kay. Euh, problème mu impôt jamono yonent bi amoon na bañ a dañ koy joxe nga lan impôt kay dañ koy joxe bañ a reconnaître dañ koo reconnaître kenn ku ne da ngay joxe sa impôt ndax itam impôt bi ci réew mi lay ci réew mi lay waaw ci réew mi lay dem kon kay baax na dañ ko joxe rek. nga ne dama am entreprise man ñaata a nga yëkkati joxe na man xaw ma ko xaw ma sax entreprise nu mu demee xawma nit ñi fa ne ni ñu demee waaye bopp bu ne daal nangam war na koo joxe xanaa xam man mii dama war a joxe lemp sax. Ah waaw dama joxe wala man mii damaa war a joxe yéen ñii yëpp da war a joxe impôt yi eh. waaye da ngeen naa joxe wala mm-hmm. loolu la ça mm-hmm. parce que ñun ñëpp war a joxe lempo waaw ah, Ousmane Sonko nag bu mu dégg loolu tax mu ñuy woo moom moom bu bu ñu wooyee amuñu dara waaw ah, moom nañu baal rek comme ni muy baalee télé yëpp na leen baal rek na leen baal rek ndax xam ni moo aye te ko aye wal sa moom moo aye de te aye wal sa moom moo aye te waaye na ko wal wal bu rafet nekk si presse bi am lu nga xam ne kàddu yoo xam ne euh, waxtaan na ko ak si wàllu impôt bi bu expliqué am na yoo xamante ne ñu ngi fii Sénégal euh, privé ñuy fay impôt kon yéen da ngeen a fay su fekkente ne da boo wax ne doo fay ñeneen ñi jóg ne doo leen fay waxee ko boo xamante ne wax dëgg euh, da nga xam ne yenn na maanaam. <coughs> nga mu leen ko waxee daal comme daal. ñoom mm. wax ah déedéet wax na dëgg di parce que kii mag bu ne du def kii ndaw danaan du def mm-hmm. loolu rek la kii mag bu ne du ma def dara mm-hmm. te moom ndaw li ñu bokk luñ leen sant ndaw li danaan may duma def dara waaw li wax dëgg la parce que bu bu ñii ne duñ def ñii itam ne duñ def. Mm-hmm. kon nag nañ ñëpp def rek waaye nañ ne oyof rek na oyof rek na leen oyofara rek bu leen manta baal ñoom ñëpp bu leen mënee baal ñëpp na leen baal parce que jekkuñu ko ci jamono bi neexul jamono bi neexul dafa métti jamono bi dafa métti ku weddi rek làmbal sa kàng hmm. jamono bi dafa métti waaye nag bu fekkente ne daf leen bëgg a forcer ci noonu du sotti na leen baal su leen mënee baal na ko def bu ko mënta baal na ko wàññi ba ñu mën koo def waaw ndax itam kenn ko ne ña nga yor sax pour nga fay leen da lay pour nga fay leen problème lay doon boo ci bëggee boole joxe lempo nag kon day gën a métti di waaye kon ndax eh, boo ci dem bala ñu leen fay la cinq la quinze ah am na ñuy dem ba loolu lépp ah kooku boo ca bëggee boole fay lempo nag gën a métti hmm. beneen point boo xamante ni bëgg naa tamit nga am ci ay leeral bu baax a baax diggante wàllu lislaam ak yàq parce que tamit dañoo gis ñi nga xamante ni souvent Sénégal nit bu waree am borom kër rek yàlla bu am sax tur dañuy commencé di ko yàq gis nañu général bi doomu Viviane ak Vivi ñu war ko maye ci kan yi waaye ñu ngi génn ci réseau yi di wax que ni dëkkër ji baaxul defut nii te loolu mën na nekk loo xamante ni si du gàllankoor si la lan nga lu si kuñ bëgg a maye doomu Bouba Ndour ak Viviane Zeyna waaw léegi nag lu ci nit ñi wax. du yoo ah, xam nga mm, nit moom loolu mooy aadam ku mu jubluwul yàq la ku mu jublu defeer la ku mu jubluwul yàq la ku mu jublu defeer la Zeyna moomu su ci wël yi doon dugg sax te yéenewuñ ko ko. ñu wax ca ñaaw waaw naan kii nga xam ni day julleeg nangam nangam kii di woor ak kii di yor kaamil ak kii mënta yore jabar loolu ngay dégg alhamdulilahi rabbil alamin yéen baal yéen waaye bu dee triyaar yëpp nañ ko bàyyi jàmbu rek nañ bàyyi rek ñoom ñaar gannaaw bëggante nañ nañ leen bàyyi su lu waaye yow waaye yow sëy boo xam ne sa yoon nekku ci sa yoon nekku ci sëy bi bu baaxee sa yoon nekku ci bu bonee sa yoon nekku ci waaye nag sëy diggante góor ak jigéen li ci pël yi wax rek yu ma mujj baaba mujj bi ngel bonata waaw dañu ne daal euh, euh, yaay bu baaxee bàyyi baax doom du baax bon doom mënta am fenn fu mu jaar ba bon yaay bu baaxee bàyyi baax doom amul fu mu jaar ba bon day baax rek waaye bu yaay bonee bàyyi bon doom ante am fu mu jaar ba baax day bon rek waaw ñoom nag bëggante nañ leen may rek ndax li ci kanam rawul bët waaye ne ci réseaux sociaux yi naan kii trian la kii nangam la mel ak kii nangam la mel waa ndaw si ndaw si xam na ko ndaw si dugg kay xanaa xam na ko ah moom mi xam waa ji ba dugg ci waa ji bu dee trian xam na bu dul trian xam na nañu bàyyi jàmbur rek mu sëy mm-hmm. nañu bàyyi jàmbur rek mu sëy sëyam sëy bi fu mu yem baax na mm-hmm. waaye nay sëy rek waaye ñi wër di njaalo nag luy seen àtt mm-hmm. ñii njaalo na xanaa xanaa ñii njaalo koy ñii leen gën trian bu takk jabar a ko gën ah trian bu takk jabar a gën euh, ku dul trian di njaalo ah trian bu takk jabar moo gën ku dul trian dem di njaalu ci ñu dul trian di njaalu du jeex waaw du jeex njaalu ko di du jeex du jeex waaw itam wax dëgg yàlla nag lée am na loo xam ne li gën a rafet moo gën a rafet waaw kon nag eh, mu am moom doom ak amuñu doom lu ñu mën a jote rek dagan na waaw bu ñu sëyee mënoon na ko ëmbal kon luñ ciy wax mënoon na ko mënoon na ko ëmbal kon luñ ciy wax waaw mu gën a mu ñaaw mu ñaaw kay ngay wax <laughs> mu kon kay mu ñaaw waaye kii takk kii bëgg a takk waaye waaye nañ ko bàyyi mu takk waaw nañ ko bàyyi mu takk bu leen déglu bu leen def dara ndaw si na na na jàpp fi mu jàpp góor gi na jàpp fi mu jàpp bu mu déglu bu mu def dara waaw kay sas euh, euh, maanaam euh, man question bi may ñëw ci loolu moo yàqante bi biir Sénégal dem na ba fi mu toll nii dépassé na sax euh, yàqante nekkatul sax maanaam mënatuñ ko sax jàppale yàqante parce que nit ñi yematuñ ci jël sa moroomu euh, jullit di ko yàq dañuy dem ba benn sax dañuy jël euh, koo xam ne nii tey xamul fu coow tàmbalee xamul fu nit ki juddoo ak fu mu sosoo ñu fay ko xaalis ne ko demal yàq diw diw mooy yaayam diw mooy papaam nga xëy taal ko nekk sa live di ko waxal lu bon. loolu naka nga ko mën a jàng tey fii ci réew mi inna alladina yuxibuuna an tachia alfaahishatu fi alladina amanu fa looma azabun fi dunia wal axira yàlla nee ñi nga xam ne dañuy jël seen làmmiñ di ko tey jullit yi di leen wax lu ñaaw di leen wax lu bon nee na danaa leen mbugal ci àdduna danaa leen mbugal àllaaxira danaa leen mbugal ci àdduna danaa leen mbugal àllaaxira loolu dara jaru ko ngay yow ñu fay luñ lay fay buñ la fayoon téeméeri milliards jaru ko ñaar téeméeri milliards jaru ko nga jël gor soo xamalul dara dara dara nga dem ci nga dem ci deram di wax lu la neex loolu baaxul waaw yàlla daal nee ñi koy def dana leen euh, mbugal ci àdduna naa leen mbugal ci àllaaxira waaw ñi koy def waaw baaxul waaw loolu baaxul waaw nañ yem kenn ku ne am nga sikk moo na de ku ne am nga sikk sikk boo xam ne te ida aratanta ko ro ayóba xayrika parce que ro ayóba nafsika soo nam nammee tudd ayibu jàmbur doo sa ayib gis am na ayib ñëpp a ci yem man mii sax am naa ayib ñëpp am ayib kenn ku ne sa ayib kay boo ko xalaatee man nga doy na la xalaat waaye nga nekk euh, bàyyi sa ayib fale doo ci wax ne ci ayibu jàmbur loolu doxul te ki ngay wax sax amul ayib da nga koo sosal ayib rek. Mm-hmm. waaw tudd ndeyam tudd baayam tudd waxal ko lu bon loolu daganul mm-hmm. ku ko def nag yàlla nee na danaa la duma fii duma la fële. Mm-hmm. waaw duma fii duma fële. ku bëgg nag duma yi acca. ku xaaj jaral ñu lay duma. acca ku xaaj jaralul acca. oustaz suñu dernière question rek euh, ki nga xam ah, lan la lislaam àtte xamante ni si ñu euh, ñuy góor mu ak mala parce tamit ko dégg fan yi koo xamante ni si dañu sëy ak mala ba sax da cee accro ba mënatu koo bàyyi moment bi kooku lan la ko lislaam àtte ak mala mala nga rek <laughs> mala nga rek mala mala la mm-hmm. parce que kuy sëy ak mala mala la da ngaa defee ne loolu euh, yow xanaa da koy doog yëg <laughs> loolu bëri na di mm. loolu bëri na lool lool lool bëri ñu yore xar bëri ñu koy def bëy bëri ñu koy lépp lu lu ko nangu rek parce que am na yoo xam ne boo leen jegee bu dee mbaam boo ko yegee bu la wéqee la nga yàqu mm-hmm. waaw mm-hmm. am na ñu koy def seeni fas lépp fas fas sax fas am na amoon na mm-hmm. man fekkee naa ko koo xam ne fas la doon sëyee fas wa xam nga nu mu def dafa dee fas wa dafa dee dafa sëyee fas wi rek fas yu am semaine dee dafa rus bàyyi ma day rus yow itam surtout muy naaru góor waaw wuñ mayoon si Abdu fas wa dafa rus fas wa daa dee waaw ngay ji sëyee ay fas ak xool ki xalaat ba xool fas romb fas bàyyi bu guddi mu yéeg ci kawam dem di ko séyee xam nga ni kii kii nekkatul nit kii nekkatul nit rab la comme comme rab yi waaw ko loolu nag baaxul loolu nag koy def ñu la jàppee dañ laa war a rey rek benn yoon ah wul luñ la fi du baax di ah, parce que am na ku woon xar ma dafa mujj am doomi ah. xar lii nit wallahi wal xuraan waxi caan tuwaawoon laa wax jeere maanee ko foto woon bàyyi ko ci studio baa ngi sama daara fa la studio ba nekkoon sëñ Abdou mu jënd kër googu defar këram fa la studio ba nekk sa studio ba lañ ko defoon doom ji mu nekk lii bopp bi di nit lii di xar waaw yeetal loolu waaw ah, moom nga ah, <laughs> yéex lu bon yàgg nañu àdduna àdduna lu àdduna àdduna lu bon rek a fi ne loo ne du am rek am na loo ne du amul rek am na loo amul am na waaw moom kay lu bon yàgg na ci àdduna loo defe ne amul am na bul ne dara amul bu la waxee rek bul ne dara amul neel am na xëy na maa gisul walla maa ko déggul waaye am na waaye loo loo gis ci àdduna am na waaw oh, c'est ay bàyyi maag yooyu kay yow ma nga rek bàyyi ma nga rek mais Oustaz naka nga jàngatee eh, ñii di waykat yi xam naa ne yooyu moom sax yënguwoo ci mais ku ci mel ni Sidi Diop ak Wally Seck bi ñu dajee daal juboo comme que dañ ñëwoon dañoo am problème Sénégalais yi ñëpp di ko rafetlu ñu nga ko gisee ah, ah, naka la naka nga ko jàngatee. barke alquranul karim gisuma ko billaahi wal kitaabi <laughs> wallaahi wal quranul karim gisuma ko. Mm-hmm. man yooyu du ko seetaan. billaahi wal quranul karim gisuma ko. dara dara jee yónent bi gisuma ko tey sax maa ngi koy doog a dégg nii sax ci yow man yooyu intéressé wu ma intéressé wu ma waaw man du ma seetaan ay yu bëree bëri bi du ma ko seetaan parce que waa ji dañ ko ne yow lu yow daal da ngay ree rek di kontaan rek sa fan daa gudd lool ñu jaaxal ñu jaaxal ñu su naan li si laaj ko mu ne eh, li ko def du ma seetaan du ma déglu te ko du seetaan doo déglu da ngay am jàmm waaw waaye booy seetaan léeg-léeg gis dara naan way xoolal nangam téléphone sa waay nangam nangam di nangam seetal ci internet bi nangam ma nga fa xool site bi nangam ma nga fa loolu lépp amul solo soo nangoo sa bopp daal soo nangoo sa bopp moom ko yu bëri doo ko xam su la sa bopp moomee nag lépp ngay xam su sa bopp moomee lu yëngu nga xam waaye boo moomee sa bopp doo xam dara waaw moom sa bopp nag moo gën mm-hmm. waaw fexe ba moom sa bopp parce que wax yëpp amul njëriñ wax yi fii wax faa wax fa yëpp amul njëriñ ci Sénégal xam nga lu leen luñ man wax euh, ñaar ñu def dara ñu xëy baaxal ko waxtaan ci apprécier balaa amaat semaine ñu saaga leen hmm. saaga yu tàng hmm. saaga yu tàng yu métti lañ leen saagawaat ah mu nga kenn mënu ci dara waaye man man nag man nag loolu hmm. du ci fekk waaw ah, du ci fekk wax dëgg yàlla xaw ma ci dara dara dara dara ci ñaar ñooñu wax dëgg yàlla. mais naka ngay cadré gone yi nga xam ne tey ñu ci bëri ñoo toppoon ci ginnaaw Ousmane Sonko te jamono ji gis nañ ñu ci bëri ñu ngi daanaka ngi xel mi ngi xaw a teey parce que fi ñuy liggéey lu ci mel ni ay marchands ambulants dañ leen fay jëlee euh, ngir euh, recadrer leen defaraat leen fi ñuy nekk euh, ñu ci bëri di wax ni est-ce que tey teelul maanaam tey ñu jëlee leen fu leen nekk te duñ leen jox li nga xam ne moo di bërëbu liggéeyukaay. waaw moom xam nga man. ci suma ci suma gis-gis ak gis-gisu diine dafa dafa dafa gaaw parce que biñ faloo léegi amul at amul at niñ leen bàyyi rek ñi nga xam ne nag dañoo nekk ay marchands ambulants di jaay man de su doon man de kaasal naa leen ba tàyyi seen siti yi bu ngeen ko xoolee dangeen ngeen koy gis ba tàyyi kaasal naa leen nañ leen bàyyi ñu liggéey waaw sa réew buñ la fa dàqee boo demee ci mel ne réew kay du mat a wax ku ñuy dàq sa réew boo demee ci mel ne réew du mat wax nañ leen bàyyi suñ suñ leen jëlee fii nañ seet foo xam ne danañ leen fa mën a yóbbu ñu nekk fa mm-hmm. waaye nag jëlee leen fi ba pare joxuñu leen dara du neex waaw gis nga nag euh, xale yi nga wax ne ci Ousmane Sonko lañ nekk mm-hmm. seen xel a commencé tey mm-hmm. bu defee ne ñu xale yooyu la de xale Ousmane Sonko yii mm-hmm. caaxaan yëngalu leen de maa la ko wax ñi nga dégg ñuy wax ñëpp duñu xale Ousmane Sonko ah wuu maa la ko wax Ousmane Sonko xale yi ko topp ak mag ñi ko topp ak jigéen ñi ko topp caaxaan topp loolu leen waaw suñu yeboo rek bàyyi leen nañ leen bàyyi moo gën marchand ambulant na leen wuutal fu ñu nekk rek nag hmm. na leen sarax wuutal leen fu ñu nekk yax moo gën ñu buñ leen ko tere ay dañuy nekk chômeur dañuy somi bu ko defee na dëkk bi day gën a xumb nag ay agresseur lañuy doon ay woyu lañuy doon ay bànn la ñuy doon te loolu baaxul waaw kon nag nañ leen nañ leen xettali rek bàyyi leen ñu ma ñu mën a nekk ci dëkk bi hmm. waaw loolu daal moom laa ci xam dañ leen bàyyi rek waaw ñu gis fan yi tamit am benn gaal su am ay ndaw yu réer ñenn ñu gis ñu sax seen koor defe naa ni réew mi war naa weesu foofu ñeneen avancement lañ bëgg teg nañu beneen président est-ce que ndaw yi tamit jotul ñu xoolaat seen ginnaaw xool liggéey mën na may lu ñi nga xamante ni ñoo jiite réew mi ñu dem xooli xale yi indiwaat leen ci réew mi yaraat leen. déet moom kay yaraat leen a nekk xanaa indi leen ci réew mi kay waaye ko sa ak sa baay yarul ba nga matum ponkal soo góorgóorlu yar sa bopp du baax yar sa bopp. parce que li ñuy wax naan gu bi bi nañu yar nit ñi nañu yar ñaa kenn mënul yar nit ñi état mënul yar nit ñi xale yi nekk ci gaal moom kay da nga naan nit ñi na xale yi xalaataat nag nañu xalaataat seen bopp xalaat seen bakken toog ba xam moo gën gaal ko suux di nit ñi di ca waaw ñu xalaataat buñ toogee ba mu wutal leen liggéey baax na parce que waaye gis nga réew mi yëpp réew mi yëpp kenn mën leen liggéey man maa la ko réew mi yëpp kenn mën leen wutal liggéey coow yi bari rek waaye xale yëpp. kenn nu xanaa ñii dañu am liggéey ñii muñ mais senegal am na liggéey Sénégal liggéey ngi fi gis nga fi lu waay xeebul lu waay xeebu rek sa métier la waaye nag bu fekkee da nga am euh, liggéey boo bëgg ah loolu mooy problème bi waaye boo xeebul dara ah waaw jaay ay kàcc keccax jaay ay màngoog jaay ay xaalak jaay ay lépp loo gis ni ñaa ngi koy jaay ah, ña koy jaay ñu ngi ci am aslëf jaayal sa loolu kay ndax nga am ci aslëf waaye boo jaayal du sotti dangay jaay nit ku ne am nga am nga fooy fooy fooy fooy foo mën a foree dara nga dem for fa dara waaye buñ bëggee xaar liggéey bu foor ah gaw maa ngi ñëpp dañ ko mën a am nag liggéey bu foor daal moom gaw maa ngi ñu mën koo am nañu wut daal liggéey waaye liggéey bu foor mënuñu ko am moom ko mm-hmm. jërëjëf waaw kay jërë jëf. Mm-hmm. Euh, ci laaj yi kontaan nañ la ngeen fekk ma pare émission nii. waaw da ngeen émission waaye baax na yal na leen yàlla fay. yal na leen yàlla fay. yal na leen yàlla fay. defal leen seen bëgg-bëgg yépp fajal leen seen aaju yëpp. moytul leen lépp luy lore. yal na leen yàlla dimbali yal yàlla di seen dimbal ci daraje yonent bi sallallahu alayhi na yàlla di dimbal ci daraje yonent bi sallallahu alayhi yàlla di seen dimbal ñu amul jëkkër yal ko am te am yeleen gënal nag yal na leen yàlla tànnal ñu amul jëkkër yal na leen yàlla tànnal ñi amul jëkkër yal na leen yàlla tànnal bu mu leen bàyyi seen bopp ñuy tànn waaye yal tànnal te buñ naree dugg ci koo xam ne du leen jëriñ yàlla na leen yàlla dëddale mm-hmm. ba duñ ci dugg yàlla wutal leen ku ku ku baax a baax mm-hmm. ngeen leen yàlla wutal ku baax mm-hmm. ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen baal ñàq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.